wala mu nekk mbuur kenn du dox dugg mbuur kenn du dox dugg Thiès kenn du dox tuuba Touba wala Tivaouane boo président nekkee ci sëñ Babacar sëñ Mbaye Sy Mansour mais yéen ku jógee Saint-Louis da ngay taxaw amoo droit dox dugg dugg dugg dugg dugg Tivaouane ku jógee ku jógee ku jógee maître tey am nga yaakaar ne euh, procès bi tey fi lay yem dinañ ko bàyyi mu dem ñibbi ah bu fekkee ni kay amuñ intention téye ko prison ndax ah li fi nekk nii de wala ne bugaandu bandi jaayul drogue rayul nit mbëkkul benn gendarme saagawul benn gendarme bañ ne ko toogal dafa dafa oto yi wàcc ba wàcc liñ ko téye daal mooy damay dox dem Bakel ku la wax leneen day lu ko neex damay dox bu ngeen mën arrêté ma bàyyi fi convoi bi dox ñu ne ko doo dox kon yaa ngi prison loolu tey buñ ko bàyyiwul nga xam ne am na leneen loolu ci làqu buñ bàyyiwul tey bugaan Sénégal yëpp maa ngi leen xam leen ni kon dafa am lu ci làqu

mu mu muy toj affaire yi leer du dugal ay but du dugal ba gars yi jaaxle procureur jaaxle ñëpp jaaxle gars yi dañu wax bu ñu xool di waa kii lu ñu ko indee fii sa waay tooñ nañ ko de kii lu ñu def fii place bandi yi ñu naan ëne ndoog moom muy tëdd ci lali bandi yeeg néegu bandi yi kii bandi la kii di dimbale ñu sonn indi ay ay ndimbal lii la mérité damay dimbale waa Bakel yi sonn lii la mérité yéen waa Sénégal ku waxul dëgg wax la ca des yàlla nañu yàlla musal ci dul dëgg yalla yalla dimbalé ba tribunal bi yalla léral xelam teg ko ci siraatal mustaqima bu attee dëgg ndax loo atte fii dëgg ko attewaat ëllëg cey yàlla am na de ëllëg dañ ko sóoraale gaay togn baxul togn baxul résumé en français monsieur euh, maître Diouf ce qu'on peut vous dire c'est que sa bàyyi ngay va bi dem ko va bi dafi tok ñun ñu dox dem Bakel ñu du ngeen dem Bakel kat mais bu ne leen ñom jëpp wax nañ ko dé xalaat kon da ngeen may jàpp vous m'arrêtez je marche ou vous parce que man damay dox dem ñu ne ko jàpp ko yaari nañ jàpp jàpp nañ la lu ma sol am yaari nañ la jàpp jàpp nañ la ci lan ci ndenge da ngay dox dem Bakel comme convoi bi déranger nit ñi da ngay dox ñu ne noonu léegi nañ ne prison nga jëm kenn amul droit dox dugg ci dëkk boo xam ne président moo fa nekk président bu demee seeti sëñ Mountakha Touba kon kenn warul jógee Mbacke dugg Touba kenn warul jógee Daaru Muxti dox dem Touba kenn warul jógee Daaru Salaam dox dugg Touba ndax Touba ca Daaru Minam xalif bi ba ngi président de la république waaw waxi dof yooyu kañ la am ci réew mu bëgg a dof waaw Sénégal kañ la dof président bu nekkee ci dëkk ñett dix heures di dox. ñu ne non dox dugg ci dëkk boobu président mu ngi bi dëkk ba du ngeen dox dugg ci dëkk boobu Sénégal yi yéen jommiwu leen tey question yi bi ñu koy posé gars yi dañoo rus ñoom ñu ngi doon posé question yi soit disant ay gendarme. ñu ne capitaine bi nee na capitaine ordre la jot ngir mu arrêté. mu arrêté bugaan convoi bi mu arrêté convoi bi waaw. mais convoi bi la war a arrêté mais pas dox ñu ñi dox. convoi bi moom arrêté nañ ko amul refus d'obtempérer arrêté nañ ko. mooy troisième infraction bi convoi bi forcé wul baare ay barrage dafa droité ni leen comme sunu convoi bi jekk ba dee war a dimbale ji néew doole yi ñii ñàkk lépp ñu ndox bi dugg seen kër ba nangu seen kër yi comme ay ngeen ñu convoi bi dem xëy na convoi bi ni mu jekkee oto yi ni ñu rafetee ni ñu àndee jaagar-jaagar yi dugg ci dëkk bi xëy na fekk fay oto yu ànd ak président Maguette Koumidas xëy na loolu moo metti ñu ne non non non non surtout que ñoom indiwuñ benn ndimbal fa ñuy jëm ñu ne déedéet du ngeen dugg ñu ne waa kon convoi bi na toog ñun ñu dox ci dox boobu nag ñu ne leen amu leen droit dox loolu infraction la a ah, prison bu Gànzi li ko waral mooy damay dox dem Bakel ñu ne ko doo dox soo dugg Bakel dang dul